الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم تأخذه سنة ولا نوم له ما السلام عليكم mbokki sénégal salaamaaleykum mbokki diaspora salaamaaleykum mbokk àdduna def te yàlla tax ñoo jógaat ci weeru koor bi comme niñ koy faral di defee at bu nekk tey ñu génn dem Dakar dans la capitale du Sénégal notamment à Grand Yoff donc dem rek jàppale askan bi ci wàllu weeru koor bi jox leen ay suukar eh, jàpp ci combat bi lii nag commencement bi la moom la ñu ubbee ci weeru koor bi ñuy ñaan yàlla defal ñu ay xéewal yàlla nangul ñu suñu yàlla eh, Adja Nogay eh, nekk présidente def te yàlla tax mu ngi leen ziar di leen ndokkeel di leen nuyu ci koor gi di leen wax ne kooru jàmm yéen ñëpp ku ci ne fa nga nekk ñu ngi lay ñaanal nga def koor bi ci jàmm ak xéewal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 Euh, ñëwoon seet si une dame bu am bu am tour ci fi fi ñu ko fekk ci localité am euh, mu tudd Xemes Thiaw di ko xam ne ci wàllu développement endogène maanaam ci wàllu duggalante ak nit ñi social ak yëg-yëg ak solidarité soo ñëwee xaar yàlla doo ko laajte boo ko laajee xale bu ndaw mu womat la yóbbu la këram. yàlla moo ko may dayo boobu euh, tey moom lañu seet si euh, ñi fi ñëw nag aussi mooy association def te yàlla tax bi nga xam ne ki ko jiitee mooy Nogay Thiès loolu lañ koy dàkkantale mais Nogay Diop la tudd donc euh, yaayam di Mbéye Bey ak Adja Nogay Bey baayam di Alaaji Alaaji Diop bi gaañu mu doon ku baax donc maa ngi ànd ak Modou Kane sunu caméraman bi ànd ak Ngeeña jaañ

dañ koy def ba Ndànd dañ koy def ba Ñoxul Bey dañ koy def ba Thiès dañ koy def ba Tiwaawan dañ koy def ba Géejawaay amuñu fenn fu ñuy bàyyi lii nag tàmbali la euh, bi ñuy jóg présidente dafa am lu mu ñu wax mu ne ñu am naa ko ñaar ñoo xam ne muy Adja Ndey ba lee toog démb ba léegi la ma jox numéro ne ma coordonné ak moom Ndey aussi bi may coordonné ak moom muy sama nopp yi di booy ci xemes thiaw muy wane ne kon ñaar ñu déggoo lañu dafa mel ni ndox ak suukar ndax li muy wax ci yow sa ginnaaw bi nga toogee loolu la waxaat donc kon euh, nogay nag day def weeru koor bu nekk ñu am lu ñu tàmbalee euh, ñu ngi arrêté woon sunu social ci décembre deux ñu ngi soog a commencé première action bi mooy bii comme ni ko Adja Ndeye Ndiaye waxee loo de sucre bi mu indi bari na mais comme dañ ñun à travers tout le Sénégal dañuy jox donc kon ku ci ne rek da nga ci am wàll suñu jógee fii am na feneen fu ñu war a dem suñu jógee foofu am na feneen fu ñu war a dem beneen bés diggu koor gi bu koor gi waaj a jeex lu ne am na lu ñu koy waajal mais yàlla dogal na yow danga bokk ci ñi nga xam ne ñoom lañ njëkk a jukki loolu yeg yeg la bima ko ne ko mais présidente koku moy kan tonton Lamine koku liñ ma wax ci mom ak ma xam ci tonton. ak sama xarit nday tonton. ma tambalé ci donc kon euh, yalla bu ko tonton. parce que amna tonton. trop ci mais aussi amna gëm-gëm ci tonton. ndax ci es man xam ko la Euh, sociale rek la bëgg doxul ci foo doxul ci caaxaan tey age bi mu am su ko neexoon lii muy for mu dem jëndee ko ay or wala mu jëndee ko ay iPhone wala ay teereem wala nangam mais lottu na ci boppam xale bu ndaw la donc da koy jël di ko delloo ci askan bi te di ko booleek naan xeeb naa ko lii lu ndaw la fa mu dëkk ci ginnaaw raay ak li ko wër man damay toog ba guddi mu yónnee ma ne ma demal ci diw ak diw ak diw ordonnance nangam nangam nangam ne ma nag li tax ma jox ma jox la ko guddi bugguma kenn yëg ko ñi mu dëkkal sax bu ko kenn yëg xam nga loolu mooy def te yàlla tax du politique du leneen ngërëmal yàlla lañ ciy wut bu keroogee nga xam ne sa alal sànniwoo ko da ko def ci biir nit ñi nit ñi itam ku ci ne kenn xamul li nekk ci làmmiñam dinaa benn làmmiñ bu lay ñaanal mu defar sa àdduna yëpp te loolu lañuy sàkku ñaan ndax euh, dañ ne doomu ñay kenn du ko ñaanal rëy danga koy ñaanal gudd fan ndax faw dina rëy ndax euh, ku xam Nogaye cees xam baayam xam ne euh, li muy def nii daf ko nàmp lu mu moom lay toqal ndax daf maanaam loolay saf ci làmmiñam baayam noonu la daan def ay nag la daan jiital dem jox sëriñam ku ñëw waxoo tiisu ngénte mu jëndal la xar jëndal la euh, ceeb jëndal la diwlin jox la xaalis nga def sa poos bi ñu ma joxee coordination ak moom euh, ci kàddu rek bi ñuy wax téléphone laa xam ne nit ku baax la parce que kàddu dafa am lu muy signifié bi ma déggee kàddoom ma ñëw gis xar kanamam xam ne effectivement juumu ma woon waaw nit ku baax la gis ni ki tey ci ngeen bokk ndaxte dañ daan def sax fu ñu dem bu ñu la joxee pare yi jël sa photocopie carte d'identité pour wane association bi dayo bi ñi ci bokk yéen euh, Xemes Thiaw ak Anta Lo Looyeen bi na ngeen na ngeen Ndeye Ndiaye moom elle est membre mooy suñu point focal léegi fii à Dakar waaw na ngeen xam ne da ngeen bokk ci association def te yàlla tax lépp lu ñuy defati di ngeen ko yëg ci groupe bi lépp lu ñu am di ngeen jot seen wàll lépp lu ñu mën aussi ci jàppale leen ci wàllu social danañ ko def xaaruñu ci yéen dara nag politique ñu waxuñu kart boo leen ñuy jox ndax politique ñu li ñuy ñaan ci yéen mooy ngeen ñaanal fii ñu ñëw tey ci xaar yàlla euh, amul dara luñ ciy réccu te aussi ñaan nañu yàlla bu ñuy ñëwaat ñu gaare camion bi fii ceeb yi di wàcc diwlin yi di wàcc ñu koy wàccee suba ba 5 heures su ko defee yow nga jox say nit ci quartier bi yëpp waaw te loolu yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def wa rahmatullah taala wa barakaatu maa ngi nuyu ñëpp di tatagal euh, ñii seetaan leen jox seen wàccuwaay di leen wax déwénit leen nañ ko fi teewee déwéni baree bari euh, koor gi ñu dugg ci bisimilahi rahmaan génn ko alhamdulilahi rabil alamina lépp luñ ci jaamu yàlla na ko suñu borom bi nangu tey na damaa ñëw fu ma yabu tey damaa ñëw fu ma neex damaa ñëw ci samay yaay muy ajartu xemes caw ajatu anta ki ma jël nag téye ma dugal ma ci xolam muy nogoy Thiès eh, alaaji Lamiñ maa ngi lay ziar mbay jumo weexal sa nawle du la tax a ñuul eh, yaa ngi bay sa ci wàll wi yaa ngi def lu baax ci def te yàlla tax tu dafa wuy borom Lamine lañ wax Muhammad sallallahu jël social teg ko sa loxo nga yebu ca te juumoo macha allah laaw la ca kii ma teg nekk sama droite muy magu Ndogoye ngeen jaañ mi toog magu Ndogoye bokk ndey ak baay léegi nag Ndogoye dama xamante moom itali Italie la ñu xamante mu fasanteeg man wóllëre jur may njukki dugg ginnaaw raay da doon delloo njukkal turandoom Adja Ndogoye béy ma dem ca ñu teral ma. ma gis xool ndax man du ma dof at ma ma dof gi du ci xam naa li xew ma xam lii du ay naxe li am na tànki kanam amul tànki ginnaaw ci xale bu ndaw nogoy ak sama taaw ñoo maase ma maree maase kon xale mu am xale bu am xel moomu yàlla def ci moom loolu muy dox ci social dégg ay nattam nag fii Sénégal di jënd lépp ration joxe ko ba ma xam ci dara ndax am na natt boo xam ne dama ko ci boole da koo tegg jaay lépp di fayee ko salaire am étal di ko ci def kon ki yàlla tax yàlla rek moo tax muy def yàlla mi tax muy def nag yàlla ko yàlla fayal boppam bëggul mbubu bëggul dàll waaye dafa delloo la woon fa woon gor su baax dangay ngay delloo la woon fa woon boo juddoo fekk sa yaay nekk social di dox social sa papa sa waajuru góor di dox social kon yow social du la jaaxal tey nag mu jox ñu camion suukar macha allah ay tonnes yu bari lañ jox léegi bi ma def ko ay loowu 20 20 ni ma ajot nday nday lam sal ben fen bi sa loxo laa koy man ko man da fen rek la am xar yalla laa fa la magge fa la magge sama yaay la fa am kon damay jël lobi ma premier lobi ma jox ko mer xemas ciow mun ma nag yaag lamiñ yaay and yeneen and weur ba koor gi jeex di joxe parena pour yow nogoy nga judd bax ma gën parena pour and ak yow nogoy man ajot nday nday lam sal parena pour and ak yow do naxé takuy naxé man duma and ak mom ku doxul ta yalla tax duma and ak yow ndax bi ñu xëccoo ñaari waajur fexe naa ba am ko te nga am ko kon tubaarkàlla social ngay dox fekk si nga social kon ngeen ànd sotti ci la ak def ci asalaamualeykum wa rahmatulah taalaa wa barakaatu. asalaamaaleykum mbooloo mi maa ngi leen di gërëm di leen sant di gërëm ajaratu Ndeye Ndiaye Lamsal di gërëm eh, Adja. Magu Nogoy Neena Jaañ di gërëm Lamine mbay di gërëm sama mag ji di sama xarit di sama mag sama lépp ajaratu antaloo Ndey Njaay nag bi ma wooyee bërki démb wax ma xibaar bi dama ko ne yow loo am rek xaal yàlla nga ko indi ndax fii la juddoo fii la màgg fii la yaroo fii la màggee lépp lu mu am rek xaar yàlla la ko delloo si mën naa màgg nag changé dem feneen wala mu wuti ñeneen waaye ndey wutiwul kenn nun rek la wut si lu mu am nun la ko yéene tubaarkàlla macha allah mu ndeyale ma boppam nag ndax di ma teral kër ba mu jógee màkka moo ma reyal nag du ma noppi du ko wax njaay jaata bëgg maa teral su ma amee xew daf ma koy taxawal ba mu baax lu ma ko may mu ne ma sequma ak yow may yaay sama yaay boo booleeg lu mu am nag yéene na ma ko njaay jaata ma koy ñaanal gudd fan ko ànd ak fu ñu dégg moroomu artiste am tey moroomu artiste am yi jani ko dégg fu ko raw ma koy gërëm di ko sant di gërëm na koy jóob daf maa jox na nogoy nogoy woo ma ci guddi ne ma yow la ma ajaratu ndey njaay booleel ma ne ko ah mère xebes ja ma ne ko waa kay jaañ jóob ñu ne tam ne ko ah taalibe sëñ Muntaxa bi mu la de ne kontaan naa ma ne ko taalibe sëñ Fàllu bi profil bi sax sëñ mun la ci def ma ne ko kontaan naa mu ne bu soobee yàlla bu samdee naa ndey njaay dina fa ñëw ak sama mag ak sama benn càmmeñ dañu ñëw ca kër ga indi leen suukaru koor ngeen séddale ko maa ko yal na ko dund ba muy biyee màkk yal na ko dund bay séddale ay biyee màkk ak ay toni toni toni ton ndax nag ndax nag ndax nag alalam jii muy jël nekk xale bu ndaw maaseeg Mari Jaañ di jël alalam bii du ko def nii to def te yàlla tax te or xew mën na ko def si or bi di génn ci net beeg internet bi ñëpp di ko seetaan wala mu jënd ko ay tere wala mu jënd ko ay alphone yu seer waaye defu ko lu am da koo def te yàlla tax kuy def te yàlla tax yàlla lay fay ndax yàlla rek am pay nag kenn amul pay lu waaye def rek te bëgg mu réussir bëgg mu baax rek defal te yàlla tax ndax yàlla am pay te yàlla moo lay fayal boppam kon nag Jóoba Jibba Alaaji Lamin Mbay kontaan nañu Mbay kontaan nañu Jóob magu magu na koy waaye Ndey Njaay kontaan nañ ci yow de yow lii mooy wane tey ji mu ñu la joxoon ay billets màkk yow xaajal rek nga koy indi fii nga dëkk fii nga yóbboo si nga yóbboo sa yaay màkka yóbbu sa mag nijaay màkka yóbbu sa mag màkk màkka tubaarkàlla bay war sa famille di jeex ñoo yóbbu màkka tubaarkàlla macha allah amul loo defulul téye say rakk téye say mag seen kër a ngi nii bu ngeen génnee kër gi mii bu fete ginnaaw nii boo fee nga koy wiiri mooy kër ñoom day njaay kon na yow njaay jaata say mbokk say xarit ñëpp la gërëm ñëpp la bëgg man nag du ma ko def guleet yow ku baax koo xam ne boole nga ma moom du tey de boole nga ma ak ñoom Matar Ba ministre boole nga maître Ousmane Seye dama tase ak moom école Barak ma jox ko loxo nag ma ne ko sama kër la Ndeye Ndiaye Lam di ñëw man maay mère Xemes Thiaw yaay ndey Ndiaye bu daal di may jox loxo dama kontaan naa mère Xemes toujours Ndeye Ndiaye daf may wax say wax yow Ndiaye yow ko am rek boole ngamaak moom maa ngi lay ñaanal gudd fan gu ànd ak wér di la ñaanal yokkute ci sa njaboot di la ñaanal yàlla yokku la te yokku Nogoy Diop Nogoy Diop nag Diop ji ba lii muy def. yàlla du mu nekk ay camion yal na wër xaar ya àdduna si yëpp na ko dégg yal na ko àdduna dégg ci barke Alaaji Fàllu Mbàkke barke Sëñ Muntaxa yal na ko àddina dégg barke Sëñ Babacar Si yal na ko àddina dégg ndax lii muy def su ko neexoon yemale ko ci boppam waaye def yàlla tax yal na ko yàlla fay te yàlla dina ko fay de yàlla dina ko fay de kuy def te yàlla tax rek yàlla dina laa fayal boppam kon nag Alaaji Lamin Mbay Kontan na mbay ma ngi len di geureum di len sante di ñaan dal yal na yokku liyal yal na yokku ci barke Alaaji fallu yal na yokku ci barke Alaaji fallu barke serigne babakar se mbayeet mi ñu ngi lay nuyu yaa ajaratu nay ñay suñu dom ju bax ji nga àndal ki def ci yalla tax nak koku lu ñaanal waaye yeen ñi ko fi len di ñaanal ndax bu len ko don jox ngeen di ko dugal feneen kon du yegsi ci nun ndax waxtaan wax dëgg ca la ajaratu nay yaay nag lépp lu ma am rek mu ngi juddoo ci kër gi ci ginnaaw ba mu juddoo tey ñoo ko ñoo ko yor ñoo ko may jëkkër ba tubaarkaala ba mu njaboot ak jëkkëram yal na yàlla bàyyi ko njabootam ak jëkkëram lépp lu ma am nag fii lu ko jëme si ci nun bu la waxee nun mag ñii lim ni defal mënuñoo toog sax di ko wax tubaarkaala la allah ñoo ngi koy ñaanal daal fu mu bëgg a yegg yàlla na yàlla yeggale ko fa yow mbayit bi ñu ngi lay ñaanal mago mago xale bi ñu ngi koy ñaanal nu mu tuddati ngeneen jaay ñu ngi lay ñaanal ndax bu leen neexoon lii du am bu ngeen wóolu woon nday ñaay kon lii du am waaye kii ku ko wóolu nga ko baax ku ko wóolu nga ko bëgg ndeyam ku ko wóolu nga ko bëgg bokkam ku ko wóolu lu ma am ci bokkam la ko jëme muy ajaratu nday jaay mi ñu ngi lay sant ñu ngi lay gërëm yow mi indi di nun nag ñu ngi ci biir boo demee nee leen ko ñu ngi si biir ndax bu dul dara sax man mbayeen bi ma àndal sama gàmmoo te xam naa ne moom dootu lekk dara bàyyi ma loolu moom mën naa koo waat mën naa koo waat man ci barke sëñ kër si moom ñemewul a lekk dara bàyyi ma ndax sama gàmmoo alir na ñaay mi ñemewul a lekk dara bàyyi ma sama gàmmoo kon boo demee ne leen kii joxe-joxe bii ñu ngi koy ñaar yàlla yàlla na koy kees yàlla lay joxal yàllaa koy nangu noon waaye yàlla yi ñu ngi topp ci la mu jox ñu nangu ko boole yàlla rek moo def te yàlla tax musu muñ wax musuma wax ba tëj te wax te te tudduma ko parce que sama doom la papaam sama wóllëre la tudd dërgën sëy man ak moom ñoo doon ànd ñuy ànd ba léegi doomam dem ba màgg dugg ci wàllu presse nogay bi mu soxlaa ma ne ko ku ñuy ku ku am euh, maanaam ku du du lakk am nañu euh, doom joo xam ne mën na ko ni ko nit ñuy defee mën na ko sax nu rawee noonu ba pare sasu ko dara ñële da ngay ñëw waxaale ak ñoom ñu fay la moom sasu ko dara day liggéey ba pare nogayay xool jox ko xaalis boolewu leen kon Modou Kane tamit dañ koy ñaanal comme mu ngi ñuy jàppale ci liggéey bi parce que aussi lii communication dafa am solo te moom mooy jàllale sur YouTube ak yëpp kon Modou Kane yow tamit yàlla na la yàlla taxawu yàlla lafal la cat ba sa liggéey bi nga nga jariñ ci say waajur